asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara am mbégte lool teewaat fii ci seen émission Xam Sam Réew ku xam sam réew nag da nga war a xam xew-xewi sam réew ak ñooñ sam réew xam ngeen ni ñoo ngi ak yéen ci mboorum dameli i kajoor yi ñu doore woon ko ci ndicci foo njóogu muy damel bu njëkk ba egsi ci major fatim golleñ muy juróom-ñaareelu damelu kajoor major wuutu baayam bu ndaw di daaw dem ba di dammel bi gënoon a sonnal waa kajoor ba kajoor folli ko génne ko mu dem waalo waaye ba mu fa demet ñëwoon nañoo yéen ci na mu fa mujje Maajoor Fatim Golleñ moom ba mu faloo dafa jële waat mag ñi ci njiitul ko Kocc Barma Fall waajal ndaw yi ñun lañ ko waxe woon jëndal leen ay fas ak ay gànnaay ngir ñu tàggatu ci xare am xare amul waaye waajaloon na leen kon lépp loo xamante ni daaw dem ba yàqoon na ko rek maajoor moom defar na ko moom majoor nag ci ndammeelam gi ci la njàmbur nguyaay ndax xam ngeen ni jamono ji jolof yilifee tund yépp booba njàmbur ci waalo la bokkoon waaye ci nammeelu major fatim golleñ ci la njàmburgo nga xam ni ay ayor ñoo ko dëkke woon waaye waaloo ko yilifoon ci wàllu la bokkoon kon barak farakoo ñoog bi nga xamante ni moo dalaloon daaw demba bañ ko génnee te doon xalaat waaj ab xare ngir ñëw songu maajoor Fatim Ngollañ ngir delloo daaw demba ndàmmeel gi waaye daaw demba wane fa jikkoom ba waa wàllu génn ci moom kon barak farakoon ndogu moomu ci atum junni ak juróom benni téeméer ak juróom fukk ci la xaatimante ak dameel Maajoor Fatim Ngolañ yi tubaab di wax ab traité ngir njàmbur nguyaay nga xamante ni ca dëkk bu ñuy wax Mbelxoo fala ñu tanne dig wi dox walo walo ak njàmbur dig wa fa wax kër mbaykan ak mom mo doon digu walo ak njàmbur ndax xam ngeen ni fi tollu boo jaaree kër war sa rek daanaka da ngay dal di dugg walo kon digoo kër kan ak mbob gogi mo moo digo ba ni nota kon bi muy tuwab bi ñew ngir not rew bi fofé la fekkon digu walo ak jori ngul bi nga xamanteni bi mo moo doon Malick Kumba Waré ndoy nak doon ku gudd fan nga wax nañu ni am na téeméeri at ak lu topp maanaam téeméeri at ak fukk la wax ni dund na ko ndax ba Amari Ngoone Sobel gëfee tàkku yuga moom mi mu àndoon ak moom dem ci jëwriñ jigéen waxtaan ak moom ba doomam joojee mu mu may ko Amari Ngoone Sobel Amari Ngoone Malick Coumba dund na ak ndammeelam dund na melu doomam Masamba Takko dund ñetti doom doomi Masamba Takko muy Makhouredia Kuli Biram Banga ak Daaw Demba mi nga xam ni boo boolee li ñu nguuru toll na ci ñeent fukki ak juróom-ñaar yooyu yëpp fekke na ko nguuru Amari Ngoone Sobel ba ci nguuru Maajoor Fatim Golle kon moom jëwriñ mbul at mu njëkk ni Maajoor Fatim Golle def ci ndameel gi ci la faatu ni ma leen ko waxee di guddoonu fan waaye ba mu faatoo juróom-benni at lañu ca teg ci juróom-ñaareelu atu ndammeelu Maajoor Fatim Golleñ ci la Kocc Barma Fall wala Maxureja Demba Xole Fall moom itam faatu ñu wax ni Kocc dundoon na juróom-ñaar fukki at kon ndameel Maajoor Fatim Golleñ ñàkk na mag ñu ko doon xelal ndax Malick Coumba Woré Ndoye mi mooy joriñ wul bi nga xamante ni daaw dem ba damel jaaroon na ci moom ngir bëggoon a folli kocc te nunguwut bi daaw dem ba ci njaay itam woote ba kocc woote woon njukki teewoon na ca kon ñàkk na joriñ mbul ñu tëj ci juróom-benni at mu ñàkk ki ko doon xelal conseiller am boobu doon Kocc Barma kon ginnaaw Kocc Barma Madior Fatim Golleñ defaat na ci ndàmmeel gi fukki at ndax moom fukki at ak juróom-ñaar doon na ko ndàmmeelu Kajoor kon ci fukkeelu at adma ak juróom-ñaar ci la say manam ci la faatu mom nak bi mu faatoo kajoor joy nañu ko rëccu nañu ko lol ndax fukki at ak juróom-ñaar yi nga xamanteni doon nako ko da doon at yoo dal yu bax lol ci kajoor ba faatoom ka jor gep ko rëccu Major Fatim College nag bi mu faatoo doomam Biram Yaasin boobu moom moo ko wuutu ci ndàmmeel gi ci lu amul benn jafe-jafe waa Kajoor ñoo tànn Biram Yaasin boobu ngir mu wuutu baayam Major Fatim College moom Biram Yaasin buubu nag moom itam waa Kajoor wax nañu ni buur bu baax la woon ni baayam baayam ba ñu doon jooy muy Maajoor Fatim Gor lañ doomam ji ko wuutu di Biram Yaasin buubu moom it meloon na ni baayam te wax nañu ni jikko yi newoon ci baayam yépp itam nekkoon na ci biram yaasin buubu ndax dara du umpe jikko yooyu yëpp nee nañu lu jiitu muy wuutu baayam doon dameel jikko yooyu mu ngi woon ci moom ci ak ndawam ba ni mu doon dameel ni nga xamante ni jikko yu sew yi nekkoon ci daaw dem ba xamoon nañ ko ci moom ba muy doon ndaw li ma waxoon rek ni jikko du ganeyaan ndax daw dem ba jikkoom yu ñaaw yu mu yoron bañu ko follee mu dem walo ta barak dalal ko diko ganalé ganale bis ba bis ba dellu ci dajale wa walo ñu dem ray defaral ko fa kër gu rafet del ko fa mu dëkk fa jikko jang tok diko xaar rek jikko yu ñaaw ya ba ñu ko sancalee may ko soxna ba mu dal nag aha jikko ji jikkoom yu ñaaw yoo ko doon xaar ca pot ba dal di ne asalaamaaleykum daal koy fekk si waawaalo gis ni kat moom mii kat lu ñu yaakaaroon ci moom ak li am wuute na ba tax ñu génn ci moom soxna sëñ ko mayoon itam tas kon jikko ju rafet rek moo am solo ndax biram yaasin boobu mi jikko yi mu yoroon muy jikko yu rafet bi muy ndaw bi mu toogee wuutu baayam doon dammeelu kajoor jikko yooyee moom la wone nee nañu ak njàmbaaram umpul woon kenn moom Biram Yaasin buubu doonoon ku dëgëru fit ñoom wax nañu ni njàmbaaram gi ak fitam wi landi na ba ñëpp xam ko moom mbiram Yacine buubu loolu ngeen di dégg ci suuf muy xalam wax nañu ni moom moo ko indi Kajoor ci ndammeelu mbiram Yacine buubu ci la xalam dugg Kajoor ba am na buum goo xamante ni daanañ ko ko xalamal moom Biram Yaasin buubu amoon na buumu boppam buñ ko daan way daan ko ko xalamal moom nag bi mu doonee dammeel na bàyyam defoon rek noonu la def dafa dajale kajoor gépp wax nañu itam ni daanañu ko njiin am na galeen buñ ko daan tëggal li nga xamante ni bii saabu xare masaana bëgg a am dañuy jiin ngir ñu dajale soldaar si ngir dem xeexi moom nag xam ngeen ni bàyyam ba ko daaw dem ba génnee Saalum la demoon njiit mu nga xamante ni daanañ ko ko tëggal muy galet boobu dégg nga géwél yi danañuy wax naan biram biram bu yàggee dim njiit ab buñ ko daan tëggal ñetti yoon muy biram biram biram kon kajoor am nañu ci moom yaakaar lool lool lool ci wuutu gi mu wuutu baayam di maajoor Fatim Golley moom nag at yi bàyyam defoon ci namel gi moom la ci def muy fukki ak juróom-ñaar waaye dameel rekk la du damel teeñ mu mel ni am xelam nag nekkoon na ci songu Bawol nungu ndomb ak tànk googee fa nekk di teeñ ba doon damel teeñ mbokk yi kon li ñu cëraloon ci waxtu mat na da ñuy bàyyi xel rekk ci pàcc bi ci topp di fukkeelu pàcc bi ak ñeent ba xam mbiram yaasin boobu pexe moomu muy fexe ngir doon damel teeñ fan lay mucc te noo ngi leen di sant di leen gërëm di ziare waa group bii di ñiy safoo xam sam réew tv di ziare El Hadji Malick Sy Ale Fall Pam Ndaw Mame Balla Lo ak bokk yi nuy teewlu yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci seen ñeenteelu fukkeelu pàcc ak ñeent ngir yeggale mbiram Yaasin boobu fan lay mujj ak pexe moom mu doon fexe te mooy song Bawol ngir nungu ndombak tànk ga doon damel teeñ xanaa di leen soññ rek ngeen abonné ci seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV ba vidéo bu ñu dugal rek ngeen mën koo am noo ngi leen di sant di leen gërëm di sàkku rek ngeen topp nu ci fukkeelu pàcc bi ak ñeent ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf jërë ngeen jëf